aussi ñu dugg si rek bu ñu bëggee xam Cheikh Abdoul Dia mooy kan jaar-jaaram ba mën am taxawaay bu am solo boobu fële ca UGB bu Ndar. waaw man nag bon maa ngi tudd euh, Cheikh Abdoul Dia donc jàngee euh, Pire waaye nag avant may jàngee Pire dama jàngee Matam jóge Matam ñëw Pire jóge Pire ñëw Tivaouane donc Tivaouane laa defee sixième ba ni ma amee baccalauréat ñu orienté ma à la fois université bu Dakar ak université bu Ndar. ba ma orienté nak université bu ndar ma yalla def ma fay jangé ak ñima ma jang yalla def ma jang ba paré nak ñu far recrutement, ba ma recruter nak amna na ay poste yu bari yo xamni jot naa ko faa occupé mais ni ni ni donc chercheur là, en même temps tamit yor lepp lo xamni moy walum animation scientifique yor aussi lepp lo xamni moy promotion ak suivi donc de la recherche au niveau de l'université Gaston Berger bu Saint-Louis mais ci sa biir présentation dañ dégg nga ni ñu orienté ma Dakar université bu dakaar orienté ma aussi université bu Saint-Louis loolu mën nañ ci ay explication rek. waaw parce que nag wax dëgg yàlla yàlla dafa def année bi nga xam ni moom la amee bag ba ñu nekkee lycée donc ñun nag duñu faral sax di wax suñu bopp yàlla dafa dog dafa dogaloon ñu bokkoon ci parmi les meilleurs wax dëgg yàlla damay faral di fàttaliku benn wax ñun ba ñuy def bac ñun ñun ñu suñu tour commencé woon Cheikh matoon nañu juróom man nag bañ ñëwee ba ca bag bi dama neeri bu soobee yàlla balaa ñuy tudd benn cheikh man lay doon yàlla def nag wax dëgg yàlla nag nekk moon sax cheikh bu njëkk parce que Cheikh Tidiane tin mom la ñëk wo man ma ci soga teggu Cheikh Tidiane tin yalla def na aussi mom tamit université bu Ndar lañ ko orienté won légui ni Cheikh Tidiane tin est devenu professeur au niveau de l'UCAD donc yalla dafa def tay ñun ñëpp bañ jàngee dañ bokkon parmi les meilleurs meilleurs yi ñu doonoon nag mo taxoon ñu wóorul ñu ñun ñun bu soobee yàlla dinañ Ndar parce que aussi UGB mom la mom lañuy faral li wowe l'université d'excellence moo tax ñun suñu liggéey mo ñu mayon ñu wax ñu quelque soit alpha ñun dinañu jël université bu Ndar moo tax ba Dakar jëkke génn ñu jël ñu fa ba ñu dëggee ne ndar jël nañu dañoo wàcc dakaar dem ndar continuer suñuy étude. mais par rapport ak choix boobu nga def pour euh, continuer ses études aussi cest à amul dara loo ci regretter wala jàpp nga ne choix bi nga defoon bàyyi université bu Dakar dem ndar moom moo bi nga xam ne moom nekk bu gën. Mm-hmm. waaw loolu nag moom dama ciy sant suñu borom bu baax a baax baax a baax baax parce que wax dëgg yàlla ba ma demee université bu ndar yàlla dafa dogal euh, ci ay huit ans yi nga xam ne jàng naa ko donc yàlla dafa dogal ma ma jàng fa ci ay domaines yu bëri. tey jii tey boo waxee droit donc euh, on on parlera droit boo waxee économie on parlera économie boo waxee langue étrangère on parlera langue étrangère boo waxee décentralisation ñun daal yàlla def na bañ demee université daal ba ñu ñëwee ba licence dañu inscrire ci yeneen domaine ba nga xam ne ba ñu am suñu ay DEA yàlla def na ma am DEA ci fii am maîtrise fële am maîtrise encore fële loolu moo ngi taxoon te loolu yëpp ba muy mën a am da fekk na dañ jàppoon université bu Ndar am na ak dal dal gu wóor goo xam ne dinañ mën a mais Dakar moom wax dëgg yàlla ba ma nombre d'étudiants yi ma fa fekkoon nu ko fàtte di ko wax à chaque fois yi ma fa fekkoon ba ma tegee sama tànk ci UCAD dama tiit dama ne fii di wax dëgg yàlla su ma fi jàngee moom du ma réussir ndekete yoolu nag yàlla moom mi ngi may réserver UGB wax dëgg yàlla jàngee naa fa nag waaye rëccu ma aussi nag la ma fa jaaree wax dëgg yàlla. donc léegi <laughs> loolu am na solo ak parcours bi macha allah lañ rek lañ ci mënti teg ak aussi loolu fierté la aussi bu Tivaouane mënee am doom yu am taxawaay boobu ci jàng bi bok nga ci ñi nga xamante seen rak chaque année daf leen fay fekk léegi ban taxawaay ngeen am dëgg-dëgg par rapport ak seen rak ak seen frère nga xam daf leen fay fekk man nag euh, sama aduna dafa mës dama mës a nyari ñaari mbir dama jàpp ni àdduna daal jàppalante rek moo fi war am man loolu laa gëm moo tax su ma gisee ku jàppale nit damay kontaan lool yàlla dafa def nag ba mu amee bac ba mu amee bac nekk université dama naan def chaque fois rek saa yu bac bi si damay ñëw jàppale si ñi nga xam ne def bac nekk ci ma di def di def di def ba yàlla def nak ñu recruter ma au niveau de l'UGB bañ ma recruter nak mu doon une occasion inespérée pour man ma jappelé képp ko xam nek nga étudiant nek dans le département de Tivaouane képp ko xam nek nga étudiant nek nga ci UGB dama lay jàppale te yalla tax information bo soxla dana ci taxaw bu amé problème de bourse dana ci taxaw bu amé problème de note dina ci taxaw problème bo mëna am bref so mako waxé ma and ci yow taxaw ci lool nak mom wax dëgg yalla ba légui moy sama taxawaay fële ci université bu Ndar te nag ma koy defal ñëpp parfois aussi mais nag di ci beral loxo ñi nga xam ne ñoo nekk dans le département de Tivaouane rawatina aussi fii nga xam ne fi laa nekk fii di commune bu Tivaouane. mais puisque aussi université bu ci nekk day am ay amicales yi nga xam day jóge ci benn dëkk léegi yow ban façon liggéey nga doon liggéey ak amicales yooyu wala danga ko doon def rek en solo. waaw yàlla dafa dogal nag euh, poste bi mu njëkkoon occupé euh, avant dara boobu temps fekk aussi may jàngale mooy man maa yoroon lépp lu orientation. maa ngi lépp luy bourse xam nga boo yoree wàllum orientation lépp luy dugg si ci yow lay jaar j'avais l'habitude de dire que man j'étais la porte d'entrée de l'université luy dugg université xam naa ko boo nee ma nombre d'étudiants ma wax la boo nee ma ñi am bourse ma wax la boo nee ma ñi amul bourse ma wax la boo nee ma ñi cartouché ma wax la donc fekkee man am naa un certain nombre d'informations dana ma mën a permettre à chaque fois bu amee avantage bu dugg si rek mu mën a xool ñan laa ci jàppale am na ay audio yoo xam ne yor naa ko fi da nga daan dégg ay ay ñoo xam ni seen ay waajur dañ daan bind ay lettres su ma la waxee ni man ñaata lettre laa jot yoo xam ni ci ay préfet la jóge préfet de Kanel ay gouverneur ay colonel n'importe qui ba ci fédération sénégalaise de football bi dañ daan jël ay yére ay mayo di ma ko envoyé ngir cër bi nga xam ni maa ngi doon cërale seen ay doom parce que man dama jàpp daal àdduna daal jàppalante rek moo fi nekk man loolu laa gëm ci loolu lay dox. ok loolu loolu loolu am na solo mbokk yi donc léegi mais jàppale boobu noonu nga xam ni daan nga ko amal fële ca UGB bu Saint-Louis. mais est-ce que jàppale boobu aussi daan na egsi ba Tivaouane muy doomu Tivaouane yi nga xamante ni peut-être ñoom ci yeneen université yi lañ nekkoon bu ci mel ni Bambey wala Ziguinchor wala Dakar donc est-ce que yow sa loxo daan na gudd ba man di teg ñooñu loxo wala ci ñoom environnement université bu Saint-Louis rek la yemoon. Mhm. xam nga saa yàlla mosaan def li may voyager di dem direction de bourses bëri na donc dama bokkoon commission nationale d'attribution des bourses des bourses soo fa bokkee lépp luy bourse rek bu mosaan génne da nga koy yëkk

bu kaw Kaolack daf fi ñëwoon yàlla def ñu orienté ko bañ ko orienté étudiant bi def erreur validé wul woon dafa fayoon non validé wul c'est-à-dire fayul woon quoi ba affaire bi weesu ñu forklu ko mu ñëw ci man na ndeysaan mu yéeg wàcc yéeg wàcc yéeg wàcc ba finalement yàlla def université bu Sine Saalum mujj ko jalaat léegi man relation yu mel noonu la am ak étudiants yi nga xam ne ñoo nekk fii yépp man étudiants yi aw ma ci xàjj ak seen man rek maa nekk koo xam ne man maa bokk seen ay groupe WhatsApp parce que information yi may am chaque fois yu baax dama koy dugal seen biir bu concours amee euh, boo duggee seen groupe whatsapp concours bu ci am man maa ko ci dugal barke déem laa ci def concours euh, concours douane bi ak concours ENTSS bi ak concours euh, Eaux et Forêts bi parce que man information yi may am day bëri information bu mu am dama koy partager ak ñoom parce que man dama bëgg ñoom ñu réussir parce que ñoom seen réussite man mooy sama aussi réussite daal man ci loolu daal laay yëngatu guddeeg bëccëg mais ku ne gis na ne aussi depuis 2012 aussi Euh, bien que am na université publique yoo xam existé na mais dafa am beneen genre forme université bu existé muy université virtuelle du Sénégal ak aussi université bi nga xamante ni moom moo coiffé bépp étudiant bu nga xamante ni dañ leen yóbbu ci privé bi léegi yéen ban taxawaay ngeen di am par rapport ak étudiants yooyu di nekk ci privé wala di nekk ci UVS puisque yéen lu ci ëpp seen loxo ci euh, ñi nekk ci public bi la daan yëngu ko mm-hmm. xam nga lépp loo xam ne état da koy def état da koy def état da koy defal ñëpp état ñëpp lay yemale donc bu amee ay yoo xam ne état da koy joxe ko état day joxe ñi nekk ci université publique yi état jox ñi nekk UVS man nag lépp loo xam ne mën naa ko man da nga gis nit ko xam da ngay nekk UVS par exemple wala étudiants yoo xam ne nekk dans le privé parfois damay toog ak ñoom bu ñëwee ci man parce que parfois étudiant woo ma téléphone wala mu bind ma mu ne ma man de wax dëgg yàlla xamante wuñu wala mosuñoo gisante mais sa tur laa dégg rek ak dégg jëf yu baax yi ngay def ma ne mën naa jokkaloo ak yow man yaa y'a énormément d'étudiants yoo xam ni dañoo jàngee dans le privé wala jàngee ay UVS man puisque man xam naa système bi ni muy fonctionner bu ñu defee deux ans wala trois ans après suñ may suñu ma waxee ni ñoom dañoo bëgg a def réorientation bu ñëwee ci man dama leen di jàppale ci ay demande ci ay yoon ay parcours yoo xam naa leen ko wan ba yàlla def ñu jël leen ci université publique yi wax dëgg yàlla daal bépp service boo xam ne man am naa ko wala mën naa ko dama koy bokk ak ñoom parce que jàppale leen rek wax dëgg yàlla man mooy sama moom tax jóg daal mais aussi da foofu dañuy relancer rek am fu ñu dugg muy par rapport ak aussi li nga xamante ne état da koy def muy di orienter des jeunes bacheliers ci université privée yi mais euh, Tivaouane ak euh, yéen ñi nga xamante ni di ngeen di yëngu ci milieu étudiant mi c'est-à-dire ban gis-gis ngeen ci am parce que dina am ñoo xamante ni ñoom dañ leen di orienté ci privé yi mais bu ñu sañoon dañuy nekk fii ci dëkk bi am ay écoles yu leen permettre ñu defee fii seen formation bañ a sori mm-hmm. yéen ban gis-gis ak ban xalaat ngeen jàpp ni loolu mën nañ ko ci def pour loolu noonu mën a am. waaw xam nga yàlla dafa def yàlla dafa def fan yi euh, diggante euh, talaata ba léegi talaata maa ngi woon lycée à larba ngi won Al Amin école bële démb àjjuma maa ngi euh, Abdou Aziz Dabakh dañu invité won ñu waron jàkkaarloog élèves yi wax leen affaire orientation wax leen affaire filière yi nga xamni mo dans les universités parce que dafa am lo xamni ni faral di wax ben baat beaucoup d'élèves en classe de terminale n'ont aucune information sur les universités et que le plus souvent ils s'orientent vers des filières dont ils n'ont absolument aucune connaissance et vers lesquelles ils échouent le plus souvent man dama gis ni am na suñ ay doom yu bëri wala suñ ay rakk yu bëri yoo xam ni boo demee ci université ya ñu ci bëri ci ñoom dañoo cartouché parce que ba ñuy jàng amuñu woon benn information yi li nga xam ni moo nekk ci université yéen nag ñooñu bu ñu nee ba am bac boo leen demandé à ce que ñu def orientation mais duñ ko mën duñ ko mën def parce que xamuñu parce que le lien qui devait exister entre l' enseignement secondaire ak l' enseignement supérieur lien boobu nag moo amul woon amul tamit véritablement ay jeunes yu taxaw yoo xam ni dinañ ne ah, ñu ngi kat xaar pour jàppale suñu ay rakk ñu mën am information bu baax kañ lañ ko faral di def mooy su bac bi xasee ba jàll bag bi nag bu xasee ba jàll ñu demander l' état demandé à ce que élèves yi def seen orientation mais en 10 jours en une semaine nit ki mënoo ko jàppale ba mu xam effectivement li xew fële te li xew fële dafay dépendre grandement ci seen avenir moo tax man à chaque fois bu yooyu amee sama numéro téléphone dama koy joxe su ma booy woowee ma leen ci jàppale parfois mu nekk par whatsapp parfois su ma ñëwee Tivaouane booy di fi jaar aussi ma leen jàppale mais comme ni ma la wax nii comme ni ma la wax nii barki démb dama demoon lycée mais ba ma jaaree lycée jaar al amin jaar da baax waxuma sax ni élèves bi kontaanee mais yàlla xam na ni professeurs yi ñoo gën a kontaan parce que professeur yu ci yu ci bëri ba mu gisee dañoo kontaan na kontaan na kontaan ba pare nag dem doon ma présenter élèves yi te man aussi loolu sa mosuma ko bëgg def parce que jaar fenn jàll app di fa jaaraat day mel leneen la quoi mais wax dëgg yàlla dañoo kontaan noonu rawatina aussi information bañ doon joxe mu nekk une information capitale parce que ñu dañoo bëgg lépp lu ñu def rek mu doon mu am benn jeexital ci askan bi daal. ci loolu daal comme ni ma la ko waxee daal ci la ñu dëkk ci ci la ñuy yendu ci ci la ñuy fanaan pour jàppale askan bi jàppale jeunesse bi. mais ci biir jàppale boobu mais dañu gis ni c'est-à-dire euh, loolu national c'est-à-dire par rapport ak ñi nga dañuy am bac mais dañuy gis ni c'est-à-dire du ñu am benn niveau d'information wala benn niveau de connaissance par rapport à l'outil informatique da ngay gis des nouveaux bacheliers yi nga xamante ni dañuy am bac bëgguñu ñu leen alors que léegi tout ça fait en ligne lépp si. kii euh, surtout campus seen bi nga koy defee. Mhm. nga gis benn nouveau bachelier boo xamante ni xamul lu sax luy compte Google. Mhm. donc yéen loolu ban ban ban ban euh, solution ngeen jàpp ni war ngeen ko man di def déjà présent balaa xale bi di egg ci fu muy amee bac moom déjà am information yi nga xamante ni yëpp moo koy xaar ak li mu war a xam. waaw loolu boo dee xool daaw amoon na daaw benn journée li ñu woowee journée d'orientation boo xam ni étudiants yi mu tudd FAERT ak ki ñuy woowee Mayel Seck xam nga Mayel Seck. daaw defoon nañ ko daaw wax dëgg yàlla te loolu noonu maire monsieur le maire Diagne Sy Mbengue jàppoon na ci bu baax a baax a baax bu baax a baax baax li nga wax na dafa am solo parce que dafa may tax ma rebondir ci benn benn mbir boo xam ne dama ko constaté ñaari mbir amoon na daawati jéeg benn bachelier boo xam ne bañ ko demandé mu def orientation en ligne bachelier scientifique koo xam ne dafa am bac s ñu demandé ko mu def orientation en ligne moo gis science juridique rek mu cliqué ci science juridique dafa dire ni moom le plus science science là. alors que science juridique la faculté de droit yaa gis comment ça fait que quelqu'un qui a le bac S2 peut se retrouver au niveau d'une faculté de droit Ce que day wane ni comme li wax outil informatique bi faut suñu yi maîtriser ko c'est extrêmement important J'ai le de dire que que le bac est la clé du bonheur Hmm? l'unique moyen d'entrer dans cet extraordinaire univers du savoir seulement une interrogation s'impose Moi lan bu xalé bi amé bac da nan j'ai mon bac et après parce que le plus souvent comme li may faral di wax xalé yi dañuy jang jang jang jang jang mais amuñu ben connaissance xam amuñu xamuñu dara dara dara ci la nga xamni mo xew dans les universités té lool dafa am solo parce que lool moy dépendre sa carrière daf ci dépendre mën nga jang ba am bac ak mention bien té gis nako nga dem retrouver wu bëgguma tudd ben ben filière mais ben filière ben filière bo xamni collé wul wala cadré wul parfaitement avec yow sa ambition té lool nak lu jara a xel la ñun daal chaque année danañu organiser ay journée d' orientation pour jàppale leen defuñu ko rek pour mbumbaay dañ koy def pour jàppale xale yi dañ jàppale ñun ku ñu déglu parce que ñun aussi li olof di faral di wax rek ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la wax fi ngay toog waaw ci loolu daal mooy ñu suñu ambition ci li ñuy jóg ci li ñuy wax pour jàppale xale yi ndax ñu réussir parce que réussite xale yi moo ñu suñu réussite daal. Mhm. donc mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen fàttali rek ni ñu ngi ci seen émission yaatal fii ci TIV info ñu dalaloon Cheikh. Abdoul Dia moom mi nga xamante ni nekk na fa la chercheur ca université bu Ndar nekk fa aussi lépp lu jëm ci wàllu animation scientifique aussi daf koy gérer foofu donc ñu ngi ak moom fii donc dañuy dugg rek ci cadre politique bi mais balaa ñuy dugg ci politique bi aussi gis nañ ni euh, à Tivaouane ku jige maire nga kuy ànd ak maire nga donc ñu bëggoon a ñëw rek ci sa relation ak nu mu demee ak foo leen jaar ba mu toll fii. waaw monsieur euh, Diagne Sy nag. xamante woon nañ ci li ma jàpp man ba ñuy xëccoo eh, ba ñuy xëccoo mairie bi ba ñuy xëccoo mairie bi temps yooyu danaa gis jaañ si mbeng maa moom ñuy dajee ci ay réunion dama ko fàttee jaañ mës na ma ko wax le maire mës na ma ne man maa ngi la njëkkee apprécier bañ defee benn benn réunion fële ci UPIS nee ma jël kàddu ma waxoon ci affaire décentralisation parce que man aussi je suis expert en décentralisation waaw man ci ay décentralisation laay bind ci laay wax chaque jour jaan si mbeng nee na ba ma jëlee nag def ben intervention ci décentralisation ak lepp li collectivité locale nee mu apprécier ma quoi gis sama sama intervention mu neex ko fa yalla def nak man dafa am lo xamni ne metti ci réew mi nit ñi nit ñi nit ñi ñu ci bëri dañuy xëccoo lo xamni Sénégal la mel noonu ah téeméer bu amé poste bu ñu joxé amé poste bu ñu joxé bu féké dañ nekk dañ nekk juróomi poste ñu mara joxé Sénégal au départ juroom fukki nit dañuy taxaw yëkkati sen loxo. Sénégal la mel noonu nag mais koo ko jox le plus souvent du ko du ko mën a du ko mën a liggéey ba ñu xëccoo affaire mairie yeeg conseil yi man fi la ma fekk lépp fi la ma fekk mais boobu intéressé wu ma ngi woon ndar te li ma war a leeral mooy boobu temps Pire soxla woon na ma li muy wax ni maa ngi koy waxee ci télévision le maire le le maire de Pire Serigne Boub qui est un ami à moi et qui qui a fait beaucoup de choses pour moi maa ngi woon ndar. té ndar Saint-Louis avait besoin de moi aussi parce que man politique ba ma jàppale Macky Sall ndar la commencé jappelé ma bay lepp ñew fi ma gis nit ñi seen sëfër sëfër yeeg dem ak dik beeg yoy non ma bay ba gagné ba meer tok man ma dem ñewatuma nan lila bëgg ak lila bëgg lila ma dem ba ma tok nak nag fële ca ndar di konné sama liggéey yalla def gamu ndar am mère jaan ci mbeng ñew ñew fele ñew université jëndal étudiants yi ay ay matelas jënd defal leen ay teraanga yu bëri ma ne leen gaay kaay leen ki naan Xaadim Seen wax ma ko ma ne leen lii de c'est pour la première fois de l'histoire une autorité politique un maire déplacé wu ñëw ba fii defal leen ko kii de ko jar a jàppale la far nag étudiants yi seen biir nag dajaloo ci la nag certe bi ngay dégg certe bi ci la certe nag créé ba gaay créé certe ñu créé certe Dakar créé certe Thiès créé cert UGB bañ créé cert nag wax dëgg yàlla waa étudiants yi nekkoon Saint-Louis ki nga xam ne Xaadim Seen moo ko jiite woon te léegi sax admis na benn concours woo ma ne ma yow lañ bëgg nga jiite ko donte man du ma étudiant ma xawoon bañ nag ñu ne ma noonu yaa ngi koy jiite parce que gis nañ sa taxawaay ci biir étudiants yi finalement ma nangu ñu ñëw kër monsieur le maire monsieur le maire gis ma ak ñoom Mass Diagne xëcc ma ne ma Abdoul foo nekkoon ma nekk ko non ci dëkk bi rek dem ak dikk non non bëgg nga ñëw jàppale si ma te yàlla xam na damay wax jàkkaarloog jàkkaarlu écran bi bu fekkee ba may ñëw jaañ si mbenk jaañ dafa amoon 12 personnes mu gëm naa ni yàlla xam na ni bu fekkee am na cinquante personnes bu amee 50 personnes yu xam ne dooleeku nañ ci nañ jàpp ne 30 personnes yëpp liggéey naa ko fu étudiant nekk bu ma gis dinaa ko ne jaañ si mbenk ku ma xam dinaa ko ne jaañ si mbenk samay mbokk jaañ si mbenk ku ma xamul sax su buñ toog di waxtaan jàppale jaañ ku ma jàppale ku ma jàppale nag ba mu leer na jàppale naa la xam nga après nañ ànd jàppale jaay moo sóobu ci te nag li jar leeral mooy bañ ba waa UGB jëlee certe bi. mais mais dafa am lu ma lu ma lu ma bëgg la bëgg a laaj lu ndaw c'est-à-dire nga ni euh, bi ngay ñëw ci boobu di ànd ak jaan si même bu nekkoon cinquante personnes jamono bi ma woon ak le maire euh, mën nañu trente yaa ko indi cest à loolu tamit xam nga dafay bàyyi cim xel ni c'est comme si yow bi ngay ànd ak le déjà mbooloo nekk fa woon amoon na mbooloo amoon na mbooloo yàlla dafa def man benn jikko ne ci man damay faral di toog naan man awma tànk ginnaaw su ma xasee ba ne yow la su may tëdd yow la su may yeewu yow la te saa yu ma xëy rek maa ngi xëcc ay nit di dugal saa yu ma xëy rek fépp foo xam ni gis naa ni ay jeune ña nga fa danaa fa dem wax leen wax monsieur le maire ànd ak ñoom liggéey te nag man rek maa nekk koo xam ne du ma ànd ak nit mukk ba ñëw ne toppal sama ginnaaw dama naan la jaañ si mbeng ngi nii yaa ngi Mak yow ak jaay mak yow ñu yem jaan ci mbegg kep koo xamni xamna la te nga bëgg liggéey ak jaay suma la suma ma ak yow ba ci mom dama lay tok présenter lako paré pare la bis ni ki nak su amaté sa problème man buma ko wax du man maa koy réglé jaañ koy réglé lool ku ñaké ñaan da koy def. c'est vrai donc euh, loolu leer na lim indi donc aussi di jaaré fofu di ko laaj par rapport ak mu jëlat mairie bobu nga wax est ce que am ngeen réellement un bilan solide bu leen mëna permettre ngeen jël maire bi su nekkee waw euh, ndax xam nañ loolu ngay wax donc yann euh, acte wala yann réalisation nga mën a wax yoo xamante municipalité bi def na au cours de ces 5 ans. waw xam nga yalla dafa dogal li ñu wara li léral moy ñun suñu commune yi amuñu dara nous avons des communes qui n'ont absolument rien du tout nous avons des communes yo xamné budget yi bëriwul parce que ni mu koy faal di déggé le budget de la commune de Tivaouane ne dépasse pas 400 millions loolu la laay faal di dégg jaan ci mbeng mo ñu na fi ben centre d'enfouissement am yalla dafa dogal CIVD bi ñu di dégg fële ci mom la amé yalla dafa dogal tali ci mouram ci mandaam la tali jàmpe ya ngi gis fi bo leen génnee tali 25 km de route ngeen di dégg yépp ci mandaam la amé ci mandaam la courant yi gëné lèr la lampe yi dem fu ne ci mandaam la yi all bi amé ndox ci mandaam daal dëgg yalla ci luñu xam mais bi nga xamni mom dako da ci doxee keneen ci les salaires yi commencé daan am ci mandat am ci la euh, ci la monument yi defaroo ba léegi kuy dugg si Tivaouane da nga naan lii de mosuñu ko gis fenn ku Dakar muy monument bi muy monument bële ci mandat am ci la ay place parce que man aussi du ma conseil municipal wax dëgg yàlla li muy wax loo xam ne gis naa ko mais ku xam daal jàng ci mbeng gis fi nga xam ne foofu la fekkoon Tivaouane ak fu ñu ko yóbbu xel rafet na xel doy na ñu joxaat ko deuxième mandat ndax mu ñëw ñu Tiwaawan ñoo gën kawe mi ngi jàppale xale yi. année ay kaye yu dul jeex lay jënd di ko jox xale yi xale yi mi ngi leen di primer wax dëgg yàlla di def lu mu mën pour dëkk bi avancer ci mandat am gendarmerie bi ci mandat am préfecture baa ngi avancé ci mandat am daal wax dëgg yàlla Tiwaawan daal ci la gën sentir boppam kon di ñaanal ci mbeng li nga xam ak président de la république yàlla na ko ci def aussi nga posé waat candidat nga jëlaat ko parce que ñun yow lu yaa ñu tax a jóge ndar fële ñëw fii kon daal dina ñaanal yàlla yàlla kattanal la yàlla dolli la wërsëg ak lépp ba nga xam lépp loo mbébét bu am ci Tiwaawan yàlla def nga nga nga àggale ko ak sa sago yaa ngi jàppale jeunesse bi parce que ku waxal yàlla gis ni gis na jeunesse bi nga xam ne jël nga leen ci Tiwaawan yóbbu leen IPRES ni nga yóbbee IPRES bu sa morom yóbboon ca teer ba keneen yóbbu ca feneen dëkk bi avancé ay jeunes kenn du leen jël di leen utiliser di leen saagaloo ay jeunes da nga leen liggéey jeunesse bi liggéey la soxla mais pas ay jël ay jeune rek yob leen Facebook bek WhatsApp bi di leen yema sagalo saga saaga dara waaw. par rapport ak bilan bi li nga fi jotalim muy abattoir bi abattoir bi dafa pare wala kul ah, abattoir pare na jarna fa bakine bamay dem Pire jaar fa. parce que mom personnellement comme les limay faal di wax suma ma ak nit ki du lepp lo wax rek mané ne la gongo de sumay dem fofu duma ko wax kenn dama do dem Pire jaar fa. mais na ma ko gisee moom à quatre vingt dix pour cent quatre vingt quinze pour cent pare na dañuy xaar rek président de la toog bu toogee incha allah ñu inauguré ko te wax dëgg yàlla avantage bu rëy lay am parce que dëkk ya fa jege yu mel ni ay kër bambandoo ak dëkk yaaj nag yooyu yëpp wax dëgg yàlla dañ ko rafetlu wax ni ñoom lii dinañ gën a gis seen bopp bu baax a baax a baax ñu daal liy ñaan yàlla daal mooy Tiwaawan jëm ca kanam ti incha allah dana jëm ca kanam parce que dëkk àll yi kontaan nañ ci jaañ si mbéng lool lool lool lool fi ma koy daanalee nag mooy ci bilan bi moom rek moo fi mës a nekk maire mosul caxat-caxate suuf dem nañu sanc piir ci élection yi passé waa dëkk ba bañ jëlee parole dañ ne ñun man loolu moom ma gën a sedd sama xol yow de yow maire bëgg nañ ci yow pour man sax day wax ay réalisation waa dëkk ba de parce que yow rek yaa nekk maire boo xam ne mosoo jël suñu ay suuf di ko jaay loolu doy na maire boo xam ne sax du sàcc suuf jëlul amul leen lu mu xëccoo maire yu mel noonu la ñu soxla dëkk soxlul ku ku xif boko joxe day reg ba pare. ciowal ciowal suuf si euh, wa gumun gi ci ginaaw degon nañ fan yele ñuy euh, kaas ndax par rapport ak affaire euh, usine yi nga xamanteni day recycler mbalit bi wala yu mel non di ko contenir fofu donc ñom doon nañ wax ni dañ laal seen suuf. wa loolu mom ba mu amé man ndar la ma fekk mais dama ko yëgoon à travers ci ben site site té même site bobu ay jeune ñoo jog rek bind ci ni Tivaouane accaparement des terres nangam nangam tuddu ci monsieur le maire. monsieur le maire après xëy def ci demanti monsieur le maire moom ku ko xam daal wax dëgg yàlla xam parcours am xam ni mu ni mu fi mu jaar ak fi mu juddoo ak fa mu bokk xam ni ay suuf ay xëccoo du ci mës a bokk parce que laalewu ko sax soxlawu ko ñun ñi sax parfois dañ koy mere dañ naan ko ñun ndax doo def comme ñële mais danaan carrément daal man daal suuf moom duma ko laal du ma jël lu ma moomul du fi def loo xam ni boo lëggee dañ ma ci topp te man nag jaañ leen rek moom neex ci moom li muy nekk autorité politique yëpp day suuraale ëllëg parce que bu fekkee dañ laa former former la bu baax lii day jeex boo lëggee mu jeex fii ñu tudd say tur ci ay dossier jaru ko moo tax daal man ma gën koo apprécier. li ma li ci ci bilan bi dafa nekk bilan bu nga xamante ne à chaque fois rek y a des gens qui sont derrière yu nga xamante ne dañu am lu ko critiquer ba ci eh, coowal souf li nga wax déjà déjà wagu mun ñoom récemment doon nañ eh, kaas sen souf suñu jël indi si ay leeral leneen le may aussi moy problème abattoir parce que abattoir aussi gis nañ association bi nga xam mo teunk eh, boucher yi nekk au niveau de tiwaone mhm. ñom récemment nekkon nañ ci ben chute aussi di kaas bani sax liñ nane pose de la première pierre sax déjà amagul woon mhm. kon donc tay jii nii bu ñu toogee nga ni ñu pratiquement parna na bon dina dina dinañ xawa jaxal donc kon lolu lo ci mën tontu man dem na fa xam nga nit ñi moom man li wax dafa am fu ñu koy jëlee maire dem na fa ba fa maire di dem and ak délégation dew mo won man personnellement demoon nga man personnellement dem na fa dem na fa ba ki dé mo doon dem pire don seeti ben malade dem na fa gis na travaux yi fa mu tollu mbir mi dal inshallah Macky Sall dal prêter serment té gouvernement bu bess ay quelques jamono ñu ñëw inauguré inshallah incha allah wa mais mbir mi dal moom avancer na lepp lo xamné dal daal ci si digu nak digu nak as ak ak askan bi duma né def na ko à 100 mais au moins def na ci lo xamné xel dal na. bilan bilan bi aussi bari na lu nga xamante c'est le bilan du du du président Macky Sall de. parce que lu ci melni ni tal yi ngay wax lu ci melni gendarmerie bi lu ci melni ak euh sunu côté cœur Serigne si euh, immeuble ak bâtiment yu am solo yi nga xamanteni ni defal nañu ko yoyu lu ci bari c'est le président. waaw foofu nag nit ñi nit ñi dañ fay juum lu wax nit ñi dañ fay juum nit ñi dañ yaakaar ne lépp lu am rek président la non attention deug la comme li may faral di wax mairie suñu mairie yi amuñu doole boo xam ne pour mën a defar yenn yi mais lépp loo gis mu koy def ci Tiwaawan am na koo xam ne moo nekk ci suuf di ko dox. lu bëri maire Diagne ci mbeng da koy dox ci président parce que ku xam maire xam ni am na une relation privilégiée avec avec Macky Sall loolu moom lu wóor la gis nañ fii ci élection yi ba fi Macky Sall la ñëwee bu mu taxawee ak na mu doon wax ak Macky Sall mu doon mu wax deug yalla andando bu rafet andando bo xamni ne démb du jitu tay kon nak bu amé ko xamni parce que gis nga léegi nit ñi xawmu ma la Tiwaawan légui nit ñi dañoo avancer ba nga xamni soxlo wuñu un maire bo xamni ni mën mënta décrocher ay ay ay projet dañoo soxla maire bu ubbeeku maire bu am relation parce que maire bu am relation rek légui mo la mëna andi dara yëpp dara sa dëkk mais ba may ben maire bo xamni ne rek a fi nekk comme maire yenn maire yi sa dëkk du mës avancer amna am na dëkk yoo xam bañ nekkee dëkk ba léegi mosuñu am tali jaañ si mbeng nag ku mel ni moom ah du ma ne mos fi am de waaye wax dëgg yàlla daal parfois su may dégg ñu koy tëkkalee da nga koy tëkkaleeg ki fi nekkoon Moustapha Niang ci jàmbaaram ak pasteefam ak taxawaay bu amoon teewoon kii nag kii nag moo fi ñëw tali yi commencé bëri kii moo fi ñëw dëkk àll yi commencé naan ndox bu baax kii kat moo fi ñëw salaire yi commencé jolli kii kat moo fi ñëw jeunesse bi commencé am xëy ku mel ni kat yàlla na fi yàgg yàlla ko yàlla mayaat deuxième mandat ñun ñu ànd ak moom liggéey ñun tamit ñu gis bopp ànd ak moom ñu nit ñu gis suñu bopp baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla daal 2012 ba léegi ñu jàppale président de la république ñun tamit wax dëgg yàlla tamit ñaan nañ yàlla tamit ah, dem ci kaw ah. <laughs> donc mbokk yi loolu leer na gis nañ ni Cheikh Cheikh Cheikh Abdoul Dia dèjà mi ngi mi ngi mi ngi lancé un pic xawma le maire la koy lancé xawma le président Macky Sall la koy lancé comme quoi que ñoom tamit ñu ñu bàyyi leen xel <laughs> donc loolu duñ ko commenté mais aussi dañuy ñëw par rapport aussi ba ak ak ak ak bilan bi ba léegi dañ ciy ñëw moy euh, c'est-à-dire buñu xolé le maire Diagne Meng déjà mom ban euh, taxaway nga yaakaar ni war ko mën am ci local yi parce que déjà comme li nga li nga wax moy c'est-à-dire dafa am ben problème communication bu nga xamantene dafa am ci liggéeyam mm-hmm. léegi ban taxaway ngeen bëgg indi ci ci ci ci loolu waaw loolu moom wax dëgg yàlla li nga wax dama la koy nangul man j'ai j'ai l'habitude de dire que man je ne suis pas un nihiliste parfois barki démb damaa dem fii ci waa ji di watu ñu wax ci affaire ay dëkk lii maire def na ko fi ma wax wax wax waxu ma indi de temps mu soog a nangu mais chaque fois Tivaouane lenn la ñuy faral di critiquer monsieur le maire du dañuy liggéeyu de mais il a un problème de communication te loolu c'est extrêmement grave communication mooy lépp loo mënti liggéey liggéey liggéey te doo communiquer dafa ko dara man am na ay groupe whatsapp yoo xam ne ñu am nañ ko ñu ciy dox. ñun lu ëpp ñun dañuy communiquer ñun lu ñu gis jaañ def dañuy jël bind ko parfois nag am na ñoo xam dañuy tooñ xamuñu degré importance communication lu mel nit ki ba ànd ak moom lu mu def ci lu baax da nga koy siiwal nous sommes en politique politique soo ma mayee dama naan carrément man de mënu laa mel man moom képp koo may damay taxaw fu ma taxaw gërëm sant la noonu la mel jàng si nag moom ni ko yàlla bindee day defal ni teraanga du ko wax waaye bu ko jàng si mbeng def waxul Amna na ñu ko war a waxal parce que il fait un travail extraordinaire Fatena sang tud stade bi ñuy fubal tay ji tay ah ba ci lamp yek lepp effort yi nga xam mi ngi ko fi def lu mu def dal dañ ko wara mëna man lu la gëm ci ci politique politique lu way def dañ ko wara a parce que bi moy tax ñi xamul xam yalla dafa dogal heure fuñu ñu dem ba ci mom da koy faral di wax fuñu ñu dem taxaw wax ak nit gis kuy critiquer maire suñu wax ak mom wax ak mom wax ak mom finalement xam lu ñuy wax ni de xawmako won xawmako won parce que ñi wara communiquer ñoo communiquer wul man ñaata yoon personnellement la jël sama xaliss limi wax ni de dem alburakh fay pour defal maire communication té pourtant man je suis pas un conseiller municipal buma ñëwé fekk na maire bi élection yi jall mais dama gis na action yi mi dafa bax rek mako ko jàppale loolu daal laa gëm ci politique loolu mom lu mu wara changer la donte ñi ngi and ak mom ñun ñii dañ koy wax parfois dañ koy wax personnellement Mais au niveau de la communication ça pêche beaucoup. ok donc rek ni problème communication aussi ñu wax ça émane pas de nous le maire en personne moom moo récemment bi une évaluation euh, présidentielle donc cher euh, Cheikh comme nous avons ko une émission c'est-à-dire nga c'est-à-dire économiquement euh, ban jangat nga am puisque budget bi comme ni nga wax ça tourne autour de 400 millions est-ce que loolu noonu c'est un budget ambitieux ku ne gis na Tivaouane taxawaay bi maam ak activités yi nga xamante ni daf fi am lu ci mel ni gàmmu ak ziar nga xamante des ay bis la yoo nga xamante ni day am attraction activité commerciale wala yu si bari entreprise bari dañu fiy dugg donc yow ban jàngan nga am loolu est-ce que loolu du luy wane ni aussi municipal amna ci ben politique de budgétaire nga xamanteni ñom ñoom euh, raté nañu ko. waaw des na tëgg yalla ba njëkkee ñëw ñu né ma budget bi 400 millions la ak Tiwaawan yaatuwaayam ak dayoo bi am dama né no li mënul nekk yàlla dafa dogal en 2000 en 2011 la commune de Saint-Louis daf ma jëlone ci ben ci ben contrat bu bo xamni contrat 12 mois la won ma war leena defalone li ñi wowe les stratégies de mobilisation des ressources budgétaires dans le communes chef de région auto autres Dakar et l'exemple de Saint-Louis léegi ma doon liggéey ci wàllum budget budget bu Saint-Louis ma doon liggéey ak service impôt domaine ak service trésor dafa am lu ñuy woowee insuffisance fiscale xaw ma xam nga ko ñu bëri duñ fay impôt impôt moom ñu ko fay léegi man ba may liggéey ci commune bu Ndar budget bi 900 million la woon ñu ne ma ñoom dañoo bëgg relever seen budget bi parce que budget mooy tax dëkk dox. ba ma ci liggéeyee pendant 12 mois année ba ci topp budget bi dem ba 1 million 400 xam nga ko yokkute am na parce que fofu nak di gërëm Tafa Tafa jagn le secrétaire municipal Tafa jagn kessé mën ta yob mën ta yob mën ta yob mairie bi même bu féké autorité politique ya fay ñëw yëpp dafa nekk mën nañ am une ambition mais japp na ni budget bi mom war na mën a parce que dëkk bu amé ay atu parce que Tivaouane tey dafa am ay atu comme li wax sank gamuy ziari, nangam ak nangam kon il faut ñu créer ay stratégie yo xamni mo ñu mëna permettre xaalis bu di dugg ci heure bi war na fekk tay ñu na budget bu téwon 600 millions wala 700 millions wala bu nekkee 700 millions ñu né déwon 800 millions parce que budget prévision la lépp lo xam ne da ko prévoir nak nga wara fexé atteindre ko mais japp naa ne dala won nak mëna a weesoo donc mbokk yi loolu par rapport ak xalaat ak idée yi nga xamante ni indi na ko ci wàllu budget bi nga xamante ni Tivaouane weesuwul cent million wala bu ko weesoo it bariwul donc moom gis nañ ni comme ni ma ko waxee Tivaouane budget bi war na weesu foofu donc loolu am na solo aussi ñi ngi toog aussi ak keneen nga xamante ni dafa bokk ci ñoom bokk ci ñi jàppale le maire di taxawal jigéen ñi aussi moom dañuy dañuy dañuy def ñoom comme ni ñu koy waxee rek neddoo ko bandu <laughs> donc moom dañ koy bàyyi rek mu nuyu mbokk mi aussi lancer discours am ci seen làkk boobu ñu wax si pulaar. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu euh, seen tur ak seen sant di gërëm toogaay bi di gërëm Cheikh di ñaanal di leen ñaanal yàlla lii ngeen di def nii yàlla na gën multiplier lu bare bare bare bare yàlla na li ngeen ci am yàlla na koy seen jort ci barke sëñ Babacar bon dama doon wax tuuti rek ci samay mbokki haalpulaar yi mbeɗa on salmina kala ɗo pullo woni mbeɗa salmino mbeɗa wayro jammum minen ɗo hannde jooɗi gale cheikh abdou dia min mbaɗa émission gooto ala poste gooto biyeteeɗo omo wiyete kadi voilà tiv info minen jogiiɗo hannde waxtaan ba min ta radio gooto biyeteeɗo tiv info mbeɗa salmina kala debbo pulagon ɗo gon wuro hee usi mer salmina mer men mo nan ko jambar da cheikh eh, janci mbenga parce que janci meng yimbe be xabato bi num na feewi na feewi na feewi mais jagn ko ak moj net bat sérieux aussi parce que ko woni fof beni mara inde muɗum hebe mara dum critiquer te vraiment jagn mi yani ko net wadi dum critiquer parce que jamono ji par parce que hande wuro ngo nga wadi ndiyam machallah départemental Tivaouane fof no waɗi ndiyam no waɗi lampuji no waɗi ko gandanɗa hoore kala ko neɗɗo hina surtout men enen rewɓe kala ko gandanɗa hoore ma neɗɗo hina ɗum sohlana euh, jaaño waɗi ɗum ɗo nder wuuro he eɗen ɗum calmina noon eɗen ndaara jammu donc mbokk yi ñoo ko ndégandoo loolu am na solo muy kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko moom lañ fii ni le maire ci Tivaouane ba pare wax ko ci pulaar muy lu am solo <laughs> bien que ñun sax <laughs> pulaar bi dégg rek la ca waaye xamuñu lu bëri lu mu lu mu tekki ci olof donc ay tukulóor lañ na waaye ay <laughs> donc noonu lay demee fii ci Pire Info askan bi ci nekk làkk bi ci nekk ak fu waay mën am nga fi sa tàggu am nga fi sa tur donc foofu la ñuy jaarale tekk suñu émission wax ni tey ñu yoon fii ci émission yaatal bi ñu amal fii ci Tic Info dalaloon Cheikh Abdoul Dia bi nga xamante ni moom mu nga féete université bu Gaston bu Berger bu Ndar dafa liggéey ba pare nekk ko am benn taxawaay par rapport ak étudiants yi xamante ne dañ koy fekk foofu ak étudiants yi xamante aussi dañuy nekk fii ci Tivaouane donc di leen jàppale donc aussi ñu ñëwaat ci lépp lu jëm ci politique yi nga xamante ni daf koy def nekk koo xamante ni ku jigéen meer la moom lay jàppale loolu lépp ñu ñëw ci ak dégg nañ aussi euh, kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko ñu jëmale ko ci mais ay ñeneen ñu nekkandoo ci dëkk bi donc foofu rek la ñuy jeexale ñu ne yéen suñu émission yaatal di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje beneen incha allah fii ci ak yaatal ba beneen incha allah mbokk